ginnaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala noo ngi julli di sëlmal ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa moom mu ñu may ñu dund weneen bés ci bésu àdduna yi waaye mu wërsëgal ñu ñu jëflante xéwal yam ñu xéwalal bokk na ci xewal yooyu ñu jëflante ci waxtu su néew ci ginnaaw di nelaw ba ñu yàlla xéwalal ñu def ko waaye ba léegi mu xéwalal askanu jullit wi lenn ci xéwalu ibaadaat xéewalu jaamu yàlla ba tollu ni ñu joxe faratay waxtuy suba ñu boole ko julli fajar bañ doon def ci jàkk ji ci waxtu su néew ci ginnaaw gannaaw bu ñu déggee convocation noddukat bi di woote muy wax ci biir woote bi ne assalaatu xayrun min annawm julli audience ba ngeen war a am ak seen borom de jokkale kaay ba di jokkale ak seeni borom nde moo gën nelaw ba ngeen di nelaw ba tax na noddukat bi loolu lay firndeel ci pencum jullit ñi mu ne leen assalaatu julli assalaatu audience ba ngeen nar a am ak seeni borom assalaatu jokkalekaay kaay baleen jokkale ak seeni borom xayrun min an nawm moo gën nelaw ba ngeen di nelaw ñi yàlla wërsëgalal xéwal bu toll ni ñu war a dem wuyu woote woowu teewee nañu jàkka yi joxe nañu waxtu farata bu njëkk ci bés bi te yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ñu ne ci maanaa xadis nañu bokk na ci waxtu julli ya yàlla gën a sopp ci waxtu yu julli mooy julli fajar walla julli suba bisu arjum ci mbooloo kon bu ñu ko yàlla xéewalalee bañ ko mën a joxe ci mbooloo kon yàlla may nañu xéewal ju mag ci xéwal ya mu yore fa moom ndax wërsëgal na la def nga jëf ju mu gën a bëgg ci sa jëf ya nga ya ngay jëf waaye joxe nga waxtu yu julli yu gën a sopp ci waxtu yu julli ya julli ndax yonent bi moo ne ñu ahabu salawaati ala allah salaatu subhi yowmul jumaati fi jamaa gën ci waxtu julli ba yàlla sopp ci waxtuy julli mooy julli suba ci bésu arjuma ba nga def ci mbooloo bi ba tax na ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yàlla ñu yàlla nangul yàlla ñu yàlla jéggal yàlla ñu yàlla kattanal ñuy joxe waxtu yu julli ya si des ci bés bi ak xëytu azkar yañuy tudd ci bés bi waaye yàlla nañu yàlla déppale waxtu yi nangu ñaan ya yonent bi ne daa bokk ci yowmul jumaa waxtu woo xamante ne jullit bi du fa tàllal loxoom di ñaan yàlla lu dul yàlla dina ko jox lam koy ñaan yàlla nañu yàlla déppale ak waxtu woowu amin ya rabbal alamin mbokk yi kon loolu njëlbeenu xéwal ñaareelu xéwal ba ñu yàlla defal mooy gannaaw bu ñu delloowee suñu ruux ñu jóge ko ci nelaw lañu war mooy ñu sant ko waaw nañ koy santee nag yonent bi moo ñu ko tegtal sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne képp ku yeewu ci nelaw nga di jullit da war a sant yàlla mala delloo sa ruux gannaaw bum la faatee ci nelaw ba tax na danga ka wara sant ne ko alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur ñaan bi mooy noo ngi sant yàlla mboolem xeetu cant yu kawe yi yomatale ñeel nañu yàlla buur bi tabaraka wa taala ndax moom dong moo ma mën a def la ma doon def ndax moo ko xéewalal ma nekkee ko moo ma roofu ngelawu nelaw mu faat ma ci nelaw yëguma dara gisuma dara dégguma dara nekkuma woon sax gannaaw ci mu delloo ma sama ruux te ba ma dundee ba sama àpp jóge ko fii jot du ma dellu ci kenn duñ ma jébbal ci kenn ku dul fa moom moo tax nga déggee ci njeexantalu ñaan bi wa ilayhi nushur kon yàlla ñu yàlla bindal suñu nelaw yañ doon nelaw mu defal ñu ko yiw amin ya rabbal alamin bu ñu yeewoo ci nelaw tamit cant bañ koy delloo yan nañu ko yàlla nangul ba léegi mu defal ñu ko xasanat fil mizan na ko man na ko yan nañu ko yalla boole defal amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu leen di fàttali bés ni ki tey mooy yowmul jumaa bésu àjjuma mu nekk seydul ayyam mu am ngéneel bu toll ni moo nekk sango yu bés moo nekk bés yu am valeur ci bés yi ñu di leen fàttali ne rek tey mooy ñaar fukki fan ak ñaar ci wéeru zilxijja mooy weeru tëbaski di leen fàttali ne rek des na suñu diggante ak ashura di tam fukki fan ak juróom-ñeent dix-neuf jours moo des suñu diggante ak Ashura ñu ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala shahrullahil muharram di tamxarit woowu ñuy séntu buy ñëw yal nañu fi fekk bésu Ashura bi tamit buy ñëw yal nañu fi fekk waaye buy dem yal nañu fi bay te lépp lu ñu jaamu yàlla ci weer bi ak ci bés bi yal nañu ko buur yàlla nangul amin ya rabbal alamin mbokk yi bésu arjuma ji di tey di ñaar fukki fan ak ñaar le 22 ci weeru zilhijja ci weeru tabaski moo tombe gàddaay yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam 1445 ans 1445 ans gàddaay yonentu bi ak léegi moo nekk mille quatre cent quarante cinq ans bésu ajuma ji di tey moo nekk le vingt deux ci weeru tabaski ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru zilhijja des na suñu digganteeg tamxarit dix neuf jours fukki fan ak juróom ñeent nasalullaha tabaraka wa taala an yuwaffiqana wa iyaakum ila kulli ma yuhibbuhu wa yarda amin ya rabbal ñaan ba ñëw ci bés bi moo yow jullit bi danga nga war a bëril la ngay ñaan sa borom di ko ne buur yàlla ñu ngi lay ñaan la nga xamante ne yow dong yaa ko man yow dong yaa ko mën a def ku yow mën ko ku yow du ko def ba tax na del ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala di ko ne allahumma buuru yàlla nu ngi tàllal suñu loxo di la ñaan lañ la bëgg a ñaan nii yow dong yàkk man yow mën a def ba tax na ñu lay ñaan ihdini yàlla nga ma jubal li maxtalifa fiihi min alxaq bi isnik yàlla nga ma teg ci yoon bu jub ci li nga xamante ne nit ñi dinañ ci wuute ci dëgg ci sa ndigal innaka tahdi man tacha ndax yow yàlla yay jubal képp ku la soob ila siraatin mustaqim jëmale ko ci yoon bu jubba kon yow jullit bi ndegem da ngaa sa bopp sa borom tabaraka wa mu orienté la ci bon chemin ndegem da ngaa bàyyee sa bopp sa borom bi subhaanahu wa mu teg la ci yoon bu jubba ndegem da jébbal sa bopp ci sa borom tabaraka ngir mu orienté la ci yoon bu jubbi ba tax na nga di ko ñaan ñaan bu am valeur bi ni ne ko allahumma buur yàlla allahumma sama borom yow mi ma bind am sañ-sañ ci man ma ngi lay ñaan yàlla nga ma teg ci yoon bu jub ihdini ma ngi lay ñaan yàlla nga ma gindi yàlla nga ma orienté ci lan li maxtulifa fiihi min al xaq lan nit ñi nekkee di wuute ci dëgg bi isnika ci sa coobare ma lay ñaan yàlla nga ma orienté yàlla nga ma gindi nga teg ma ci yoon bu jub ba nga xamante ne nit yaa nga nekk ci wuute ngir xam dëgg bi yàlla nga ma orienté fa dëgg bi féete ci sa coobare ndax li ma la ñaan nii innaka di man tasha yow dong yay jubal yay orienté yay gindi kala soob jëmmale ko ila siratin mustaqim ci yoon bu jubba waaw waaye nag day fekk yàlla mu gis nga nekk ci yoon bu jub bi waaw ñu ne la taalibe ba waxoon suñu maam di suñu sëriñ sëriñ Fallu Mbakke rahimahullah waaw bu mu maa bëgg nga ñaanal ma yàlla ñu ànd ndoor tabbi àjjana walla ñaanal ma yàlla mu def ma ci ñi bokk ñu muy tàbbil këru xéewal ba nekk foo moom daa aljanna la ko sëriñ Fallu tontu rahimahullah mooy ne naa la fekk ci yoon bi ah, naa la fekk ci yoon bi kom na yonent bi wax sahaabi bi rek waaw mu ne ko ñaanal ma yàlla ma ànd ak ndoor ak yow ci àjjana la ko yonent bi tontu mooy na nga dimbale ko sa bopp ci sujuut yu bari moo ne da ngay bari la ngay julli yooyu yëpp xeetu tontu la yoo xamante ne ña yàlla baaxee xikaayatul xikma na yàlla yënkeewal xikma sagesse dañ lay tontu ci anam bi nga xamante ne dañ lay yokk courage dañ lay gën a xemmemloo ca lang leen sàkku ngir ñu ñaanal la ñoom dañ lay xemmemloo ngir ñu fekk la ci loole ñaan bi dëppoo ak sa góor góorgóorlu la ngay góorgóorlu ci diine waaw ah, moo tax yonent bi ne sahaabi bi ne aini ala kasrati sujud waaw ah, nang ma dimbalee nga dimbalee sa bopp ci sujud yu bari bi maanaa na nga saxoo di julli bul di fàtt waxtu waaye noonu lañu suñu maam ju baax ji sëriñ Mouhamadul Fadil Mbakke rahimahullah lii la wax waaw taalube bi ne ko naa la fekk ci yoon wi waaw kañ naa fekk ci yoon bi de ndax man xam naa fi may jëm te fi may jëm bu ma la fekkee ci yoon bi amaana man na laa yóbbaale waaw ah, dina la yóbbaale sax waaw kañ waaw ah, waaye bu ma la fekkee feneen fu dul yoon ba may jaar de ah man de aw jot ne damay jàll dem seetla feneen foofu nga nekk de foofu du sama jëmukaay te xaw ma fa waaw ah, lala fa tax a bàyyi nag loolu yow la waaye yoon bi ma la ne daal naa la fekk foofu su ko defee wammut la jëmmali la fi muy jëm dina doon lu yomb ci man nii la ñuy déggee maanaa ñaan bi waaye képp koo xamante ne tamit yaa ngi ñaan yàlla mu orienté la ci yoon bu jubb day fekk yàlla gis na ne yowit yaa ngi teg sa tànk ci yoon bu jubba su ko defee mu orienté la ci coobareem su ko defee noonu la ñuy déggee maanaa ñaan bi kon ñu nit ñu ngi talal suñu yoxo di ñaan borom bi tabaraka wa di ko ne allahumma ihdini lima xtulifa fihi min alxaq bi iznik innaka tahdi man tachaau ila siratin mustaqim yal nañu yàlla boole defal la ñaan bi di tekki amin ya rabbal alamin mbokk yi xadiisu bés bi di jëlee nañ xadis bi ci saxaabi ba nekkoon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di anas bun malik radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal inna min cibaadi lillahi man law aqsama ala allahi la barra'ahu rawahu buxaari jëlee nañ xadis bi ci saxaabi ba nekkoon ci kër yonent bi di anas bun malik radiyallahu anhu yal na ko bur gërëm anas nee na anna nabiya sallallahu alayhi wa qaal naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu inna min ibaadillahi bokk na ci ñenn ci jaamu yàlla ñi man law aqsama ala allahi la baraahu bu ñu dogoo ñu gëñ ci yàlla bu ñu dogoo ñu waat ci yàlla yàlla dina leen fekk ci loolu ñu waat yàlla day dogal loolu ñu waat mu daldi am ñooñu ñay yan façon jaam lu tax yàlla di anticiper ci seen waat yañu waat bu ñu dogoo ci yàlla lenn yàlla day amal loolu ñooñu ñooy yan façon jaamu yàlla ki bëgg xam la yonent bi wax ne am na ci jaamu yàlla ñoo xamante ne lépp lu ñu waat ci yàlla lépp lu ñu dogu fa yàlla yàlla da koy amal ñooñu ñooy yan façon nit nañ leen bokk xool sarxa xadis bi la fi suñu yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam maanaa xadis bi mooy yaani xalafa yaminan tamaan fi karaamillahi taala la barraahu la barraahu llahu fi qasmihi nee na ñooñu ñooy ñi nga xamante ne bu ñu tàllalee seeni loxo ndeyjoor ñu joxoñ seeni loxo ndeyjoor ñu waat ci loxo ndeyjoor ñu dogg wax lañu bëgg ci seeni loxo ndeyjoor ci tëddange yàlla ba ñu xam ak màggaayu yàlla ba ñu xam yàlla day dogal loolu ñu namm loolu ñu bëgg mu daldi xew waaye day fekk ni nag ñomit ñu làmboo jikko joo xamante ne jikko ju noobul ba yàlla sopp la dañuy doon ñu dëggu ñu xam dëgg ba ñu nekkee ñu doon ñu dëggu ñu xam dëgg ba ñuy dëggal seen dund ñu am xemmemteef ñu am yaakaar bu dëggër fa seen boroom ca la ñu xam ci dëgg bu ñu nekkee ak sellal ba ñu nekkee ba tax na bu ñu tàllalee seen loxo ndeyjoor ñu waat wala ñu namm ba ñu wax loolu ñu wax yàlla da koy amal waaye la leen koy may du lenn lu du jikko ju noobul ba ñu nekkee di dund ba tax na yonent bi nee na inna min ibadillahi man law aqsama ala la barraahu rawahu buxaari buxaari moo solo xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na am na nji ci nit ñi ci jaamu yàlla ñi ñoo xamante ne lépp lu ñu namm lépp lu ñu giñ lépp lu ñu waat ci yàlla yàlla dina leen fekk ci loolu ñu waat yàlla dina leen fekk ci loolu ñu namm su ko defee ñu déggee xadis bi noonu mbokk yi ñoo ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ñu ngi ànd ak yéen ci fajar yowmul jumaa ngeen ya fa nekk ba léegi moom lañ bëgg dégtal ci xadiisu abi hurayrata radiyallahu anhu an abi hurayrata wa xuzayfata anhuma jëlee nañ xadiis bi ci saxaabi bi ñu naan abi hurayrata ak radiyallahu anhuma yal na buur yàlla gërëm ñaar saxaaba yi ñoom ñaar ñu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenenti yàlla bi daf ne sallallahu alayhi wa sallam a adallullaha an il jumaa dafa réeral dafa nëbb yowmul jumaa man kaana qablana ñañu jiitu laata may ñëw ak sama fa kaana li yahuudu yowma sabti yàlla daal jox juif yi al yahuud di bésu gaaw wa kaana li nasaara yowmul ahad mu daal jox dimanche di dibéer ay nasaara yàlla jox nasaara yowmul ahad di dibéer mooy dimanche fa jaa allahu bina fa haadaana liyow fa haadaana allahu yowmul jumaa yàlla daal di ma yónni mu daldi di ma jox kadoo yowmul jumaa moo tax mu ne fa jaa allahu bina yàlla daal di ma yónni fa haadaana allahu li yowmul jumaati mu daal di ma jox kadoo yowmul jumaa mu jox ma bisu arjuma kom kadoo fa jaala yowma aljumaati walsabti wal ahad wa kadalika hum tabauna yowma alqiyaama mu ne yàlla def yowmul jumaa mu nekk bés bu jiitu samedi mu def yowmul jumaa mooy bés bu jiitu lii di ah dimanche wa kazalika bi neena na noonu rek la ko yàlla di defee tabaana yawma qiyaama aw tabaa tabaau lana yawma qiyaama bés penc nii la ñuy toppee seen bés nuñ ñu toppee fii ci bésu àddina si noonu bés penc yawmal qiyaama la ñaari xeet yi di topp samay xeet kon yow julit bi danga war a xam la nga yore da nga war a xam sa diine ba nga nekk ban diine la valeur bu mu am dayo bi mu am ba tax na waroo ñee kenn ca la mu nekkee ndax sa bés di yomul jumaa yàlla daka nëbb nasaraan ñi nga defe ne ñoo ñoo rey gaynde gi sa bés bi nga xamante ne muy yomul jumaa yàlla dakaa nëbb juif yi nga xamante ne tey yow yaa ngi leen di xool yeneen bët defe ne ñoo jël ndam li déedéet ñàkk xam moo la ko war a yóbbee moo tax yonent bi yàlla xamal sa yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam la ne fa jaa allahu bina yàlla daal di ma yónni fa hadaana allahu li yowmul jumaa yàlla dal di ma jox kado yowmul jumaa yàlla jox ma yowmul jumaa comme kado mu ne wa kadalika noonu rek la ko yàlla di defee hum tabaau lana ñoom de alyahuud ak nasaraan yi noonu la ñuy toppe yowmal qiyaama bés penc yonent bi nañu sallallahu alayhi wa sallam nahnu axiruun nahnu l min ahli dunia ñun de ñun ñooy xeetu yu mujj ci xeetu nit yi fi musa jaar ci àddina ñun ñooy ñu mujj ñu wal awwaluuna yowma al qiyaama waaye ñun na yàlla di njëkk jox faveur bés pénc wa nahnu nee na ñun al axarina ñun ñooy ñu mujj min ahli dunia ci xeet ya fi musa jaar ci àddina wal awwaluuna yowma alqiyaama waaye ñun ñooy ñu njëkk ñi nga xamante ne bés penc al muqdiyu laxum qabla al xalaaiq ñun la yàlla di rekle balaa muy rekle yeneen bindaafoon yi kon comme ñun ñëw mujj ci xeet ya ñëw ci àddina si waaye ñun la yàlla di njëkk rekle ñun la yàlla di njëkk xisaab ñun la yàlla di njëkk atte keroog bés pénc laata muy àtte yeneen bindaafoon hadis bi muslim moo ko solo mbokk yi lii daf di ngéneelu bés yowmul jumaa ñu xamee ko noonu su ko defee lii mooy yowmul jumaa ngéneel ya fa nekk bëri na waaye ñuy doyloo la nga xamante ne mooy ñaaru ngéneel yi ba léegi mu nekk ci ngéneelu yowmul jumaa xadis bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi moo ñu baaxee nañu sallallahu alayhi wa sallam man salla alxadaata fi jamaa tumma qaada yadkuru allaha xatta tatlicu alchams tumma salla rakaatain kaanat lahu ka ajri xajjatin wa umratin tammatin tammatin tamma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ne julli nga lii di ñaari raka ci waxtuy fajar julli nga ko ci mbooloo gannaaw si nga daal di toog moo xam sa kurus nga yore moo xam sa téere nga ubbi waaye nga nekk fa di sàbbal yàlla di ko màggal di ko tudd ba keroog jant bi daal di fenk nee na dinañ la bindal tiyaabo joo xamante ne daa mel ni aj nga makka walla def nga umra ñaari benn boo ci def fekk def nga ko mu mat sëg su ko defee lii dafa bokk ci la nga xamante ne moo nekk ngéneelu xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bésu arjuma bi nag mu lamboo ngéneel yu bari salaatu ala nabi ca la nekk jàng alquran sa kémta lay kattan ca la nekk jàng suratul kahfi ca la nekk waaye teel dem jàkk ja waajalal sa bopp xam ban jàkk nga nara julli su ko defee yooyu yëpp dafa bokk ci ay waajtaay yoo xamante ne bésu àjjuma daka lamboo julli bi daka war a bàyyi xel mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana ndax dañu war a jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan di leen ñaanal yàlla yàlla ñu yàlla may dégg ak topp lépp lu jub ci kàddu gi ñu santeeku borom bi tabaraka wa taala li nag ñu di ko jéggalu nasaluka ya allah allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulaata umurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa maa batan amin ya rabbal alamin taqabbal allahu minna wa minkum saalihul a'mal nasaluka ya allah an taghfir lana zunubana wa qaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar allahuma ighfir lana wa liwalidina walmuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat laxyaa minhum wal amwaat waghfir li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina gillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim hada wasalli llahuma wasallim wa barik ala nabiyina muhammad aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu